ahlan wa sahlan wa tarhiban bila adadi aleykum wa rahmatullahi taala wa internet bi di 24 actu ñu desiwaat ak yéen ci seen naafilay weeri koor bi tey nag nekk guddi ñaar fukkeel gi ak ñett ñeenti rakaa lay doon rakaa bu ci nekk fatiha benn yoon isa jaa juróomi yoon lexlaas juróomi yoon ñeenti rakaa ñaari sëlmal lay doon ñu bamtuwaat ko ñeenti rakaa lay doon bu ci nekk fatiha benn yoon isa jaa juróomi yoon lexlaas juróomi yoon wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu riwal madadi ahlan wa sahlan wa tarhiban bila adadi